ñoo ngi leen di joxe xikma bi fii ci maxat xikmatul yawmi li tarbiyal islamiyya wa taalim markaz Cheikh Mouhamadou al Mourtada nekk ci cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 wala 77 712 44 71 tey ñu fa seen yéene andil xikma bu amati solo te mooy wéyale li nu tàmbali woon muy alhimma al aliya muy yitte ju kawe te euh, ñu waxoon ne Sëriñ waa mi ngi taxawal yoonu murid nag ci yitte ju kawe muy fekk li ñëpp bëgg yow nga bëgg lu ko ëpp ndax yàlla ay mayam ak i xéewalam yemut fenn moo tax Sëriñ moom bi mu gisee ne tamit al iradatul amma dafa am wala iradatul xaasa moom masta jaar ci moom moom dafa moom moom dafa dafa daldi jubale rek al iradatul sa muy e, murit goo xam ne nii gu gu beru la muy bëgg lu ëpp li bindeef yi bëgg ci yàlla te loolu lu mën a nekk la moo tax Seex Mamadul Faadal dafa daan wax ne koo seen muy dox rek ab murit la xanaa kay lam muritu jëm loola moo mat a laaj lam bëgg jëm te loolu alxuraan moo ko wax minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul axira moo tax Sëriñ Tuubaa wax nañ ne Cheikh Saxdu Abi radiyallahu anhu mas naa gis ci guddi suñu borom tabaaraka wa taala wan ko eh, doomu aadama yi ñu xaaj leen ñaari xaaj mu laaj benn xaaj bi ñooy ñan ñu ne ko ñii ñooy ñi nga xam ne ni ñoom àdduna rek moo leen yitteel mu laaj beneen xaaj bi ñu ne ñii ñooy ñi nga xam ñoom àllaaxira rek leen yitteel muy àjjana texe ëllëg mu gis kuy xuus jaar ci seen diggante di waaxuy wéy mu ne waa kee moom lu mu bëgg kee moom mooy kan ñu ne ko kee mooy xaadimu rasul mu ne waa moom lu mu bëgg ñu ne ko moom de li ñaari kuréel yi bëgg yëpp lim bëgg ko ëpp mu ne moom lu mu bëgg ñu ne ko maqaamal ubudiyya la bëgg doon muy maqaamal ubudiyya nag mooy maqaama moo xam ne nii al ubudiyatu dañoo wax ne mbindeef lu mu gën a jege yàlla rek di gën di doon ab jaamam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo gën a kawe ñëpp bu digg mi ràññaan yi sax su borom tabaaraka wa taala ab jaam la ko fu tuddee subhaanallazi asra bi abdihi layla min al masjid min al masjid haram moo tax gaa yi yàlla yi bëgguñu doon ci yàlla lu dul nekk as njaamam loolu mooy maqamam mi gën a kawe euh, Cheikh Abdul Wahab Ash-Shahrani dafa gént bis wala boog muy janeer cër yi gaa yi yàlla yi am dem ba nara a xeeb ab cëram am lu ñëw dee ko ne ko Abdul Wahab bu la yàlla ubbi doon kiiraay nga gis àtte yépp lu ne fa muy jógee ak fa mu jëm te nanguloo la sag njaam du dara ci la jóge moom it di ñaan sunu borom defal ko maqaamal ubudiyya léegi nag gént ko bi ko Cheikh Saxte ab yi géntee ñu ne ko waaye nag maqaam mu doon wut am na ko bis ni tey mu daal di xëy bind leetar yónnee ko doomam ju ñuy wax Cheikh Maxfu Sëriñ itam bind leetar yónnee ko Cheikh Saxdu Abi ñaari leetar yi juyaloo Sëriñ bi mu ubbee leetar bi Cheikh Saxdu Abi bind te yónnee ko doomam mu gis Cheikh Cheikh Saxdu Abi bind ca gannaaw bu ko siyaaree ndokkeel ko ne ko dañ ma wan bi kat sa maqaama moo doon wut ñu ne ma am nga ko maa ngi la ci ndokkeel leetar bi see bi sëriñ bi bind Cheikh sax Abi it ba mu ko ubbee fekk sëriñ Tuubaa bind ci ne ko yow Cheikh Saxdu Abi ndokkeel ko siyaare ko ci li mu doon sëtu yonante bi sa la wasallam ne ko nag dama doon am maqaam mu am mu wut kat ñu xamal ma biig ne ma am naa ko ma la koy yëgal loolu mooy maqamal ubudiyya kon sëriñ Tuubaa li bëgg ak li mbindeef yi bëgg bokkul naka jekk loolu nag la muy tekk rek mooy alhimma al te mooy yitte ju kawe kon képp koo xam ne ni Sëriñ Tuubaa mooy sa royukaay war nga koo roy ca loola muy bëgg lu rëy ci yàlla buñ gisee Sëriñ Tuubaa tamit jomam ak euh, ngorom ak yitteem ak pasteefam pasteefam ak yitteem ju kawe tax na ñi ko fi jiitu ni mu baree ci zaahir ak ni mu yàgg dee ci jamono ci zaahir mu farlu am yitte ju kawe ba kenn jiituwu ko ci boromam loolu yitte ju kawe moo ko ko may digg mag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu soree ci saaxir te bi mu ñëwee dafa wax ne bu fi fekkutoon benn jox jeexiite yonent bi mu leer ne ko ci suuf si la daan dox si moo ko daan tiim li muy wut ci yonent bi yitteem ju dana ko ko may loolu mooy al imma al ju kawe digg mag saxaaba yi ni mu soree waaye jomam tax mu nawloo leen dem ba bokk ci ñoom dem ba kenn jiituwu ko ci yonent bi sallallahu alayhi mu waxal ko boppam it shahida lillah bi anni waahidu min ahli badrin maa nahaa ni jaahidu loola yitte ju kawe moo ko may mu bokk ci ahlu badar alquran ba mu wàccee ba tey ba ni sëriñ bi ñëw ci saaxir ni mu soree ak li ci jullit ñi daj mu ñëw yitteem ju kawe tax mu liggéeyal ci boromam lu tax boromam may ko ko far loola yitteem ju kawe la tem bind ko man la kañil quraan tam lii kan yadu loola yitte ju kawe moo ko may ah ñi doon tagg yonante bi sallallahu muy Kaab ak Hassan ibnu Saabit ak tàggkat yépp mu ñëw te Sëñ Tuubaa li muy def bu ñëwee dalay roy def la ndawale ba mu yàgg mu romb la noonu lay def ci ay taggiin moo tax ba mu ñëwee la xam ne ah képp koo xam ne ak mbaax a ngi ci yow kat nga xam ne tagg Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam mooy tono gi ëpp baana li kulli man lahu salaahu annam tidaaxal muntaxaa falaahu daldi sóobu nag ba àgg ci foo xam ne nii kat la ca ñooña amoon am na ko ca ba weesu leen ba bindal ko boppam lu ci nekk mu bind ko daal di wax suñu borom ko yow ñoddil nga ma lu ma dindil bépp tër waaye mujj naa nag liggéeyal gi ma liggéey yonent bi sallallahu alayhi ma mel ci ni Anas ibnu Malik waxaan ni suñu borom tabaaraka wa taala yaa ma may ay xéewal ba doon loo ma Hassan ibnu Saabit ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam am fu mu waxee sax ne jéggi naa leen faf dem naa ba nekk ci seen kanam nekkatuñ ci sama kanawaay waaye ci sama gannaaw lañ nekk lii xuttama sax sa an yedd anas surtout xadimal Moustapha misla anas malagtani wa xuttali ihsaana wa ristu fi madihi nabi xassaana wax na am am na fu mu wax sax wa fi madihi jaawastu kahban wa xassaana loolu yitt ju kawe moo ko ko may kon ñu yemale ko foofu ba ëllëg incha allah ñu ñawaat ci alhimma al aaliya yitt ju kawe te roy ci Serigne Touba xaadima rasul